auzu billaahi na seytaane rajiim yi bismillaahi rahmaani rahiim sant yàlla julli ci sangu sang yi Seydina Mohamed sant suñu ñaari waajur sant suñu wasila Cheikhul di leen nuyu baax di leen ziar te di leen balaq yi ñi nga xam ne saa su ne yéen a baaxoo di jàkkaarloog Waarwi bi nekk àllu Cheikh Ahmadou Bamba la sol te ji nag di ñetti fani koor te àjjuma ji njëkk ji koor ñu taxaw fii ci kër sëñ Fallou Fall moom sëñ sëñ fal sëñ Fallou Fall lan nekk ni ci ndog yi nga xam ne da koy togg at mu ne di ko toggal ku baax ku tedd sama waajur sama sëriñ sama lépp muy sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke sooy bu euh, la koy toggal nekk ndogo yoo xam ne dafay mucc ay macha allah lépp loo xam ne ne teraanga la ju ju ju nit war a jëfandikoo sëriñ Fallou Fall mii da koy defar sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke sooy bu nekk loo xam ne lu yàgg la sëriñ Fallou nag di kenn ci ñun koo xam ne waajur la ci ñun sëriñ la ci ñun xarit la ci ñun. ñu ñëw fii ci këram fekk fi nag sunu yaay sunu xare suñu soppee soxna Njóoba Mbàkke ndax ku xam soxna jaara xam ko soxna Njóoba Mbàkke mu nekk sama yaay joo xam ne dama koy ñaanal yàlla guddal fanam wéralu cëram ñu gis pas bi mu àndee ànd ko sëriñam bu baax bi sëriñ Fallu ci liggéey bi nga xam ne dañ koy liggéeyal yàlla di ko liggéey yonent bi di ko liggéey Cheikh Ibra Fall ah, ñu ko fi def nu sell ànd ak yéen ak pas-pas gis ngeen naaj wi ni mu tàngee waaye murit ndigal la xam murit lii la xam li ma leen di wax saa sune ne rek li ñuy namm mooy gisante waxante lu baax ànd jëfe-jëfe murit sikkar laan xala murit xam jàng ci xasida yi laan murit xam tey jii nag di àjjuma ju sell ndax àjjumay tey jii muy ji njëkk ci koor ku ne xam na pas-pas bi nga xam ne moom la ñuy àndal ñu dugg ci waañ yi woon leen soxna yi ak jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekk ci waañ yi naka la ñuy waajalee ndog yu kay kàddu ngeen ànd ceeg soxna jaara ci cameraman Sané ànd ak sëñ sëñ Cheikh Samb ak sëñ Basirou Sylla tey lii ñoo leen dikkal fii seen doxantu koor dikk fii ci kër sëñ Fallou Fall moom sëñ Aliou Fall Mbawor yàlla fi yàgg lool te sëñ Cheikh it yàlla na fi yàgg lool te wér kon sëñ Sané nga topp moom leen nuyu di la ziara ñu fekk la ci waañu sëñ Fallou fal Mbawar mi di kenn ci ci ci jëwrin yi mm-hmm. ah, tey mu nekk premier ajjuma di ñett fanu weeru koor muy toggal ndagu sëriñ seex Mbacke Soy bu sama waajur ah, ñu fekk leen fii nag ngay jëruñu waañu mm-hmm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen doole jar yéen ñu fi teew ñëpp nag ñu ngi leen di ziar leen ñaanal jàmm ju ànd ak jàmm yàlla gu nangu tey ñëw ngeen fii ci kër sëñ Fallou Fall Mbawar di kenn ci doomi Sidna Ali li Mboor yi di sëtu maam Cheikh Ibrahima Fall di ñetteelu doomi Sidna Ali Fall Mboor bu góor jëmbale joo xam ne tamit euh, maanaam li tax mu féete kër sëñ Souhaïbou bu xam nit ku ne fa mu yaroo ba màggi fa rek foofu rek maanaam fa mu nampee ba euh, fere fa foofu rek lay xam looloo waral nag daanaka mu féete fa féete goo xam ne jamono waajuróom bi maam soxna jaxate moom sëñam soxna jaxate moo ko fa yóbbu woon maanaam boole koog sëñ son bi sëñ son bi làqoo nag mu boole koog maanaam sëñ Cheikh Say loolu waral maanaam sëñ Fallou Fall Mbor sëñ Cheikh Say maanaam doon yaakaar àdduna ak alaxiram mm-hmm. waaw ndogo yi daaw am nu mu dikkee woon ren mu dikkee benn mm-hmm. ban taxawaay ngeen am mais ndogo yi daaw yi maanaam euh, sëñ la jëmmi jamono ju nekk nag maanaam ndogu yi moom ñoo ngi ko tàmbale woon ci bi nga xam ne sëriñ bi sëñ Cheikh Say woolu sëñ Fallou da ko ni ko maanaam dama am cër ci Cheikh Ibra cër bi ma ci am nag kenn jiituwu la ci te comme que yi day tàmbalee kër Cheikh Ibra jëm kër Sëñ Tuubaa dama bëgg yow it comme que maanaam yow cër nga boo xam ne ci kër Sëñ Soñ maanaam alalu Sëñ Soñ bu nga bëgg yow it maanaam ngay togg ndogu di mu ko indil sëñ bi ni ko wax ma noo ko bëggee mënu ko ni mu ko bëggee mooy damaa bëgg ajuma ju ne ngay togg ndogu di ma ko indil fii bu ñu demee ba nga xamee léegi war naa mën a weesu ajuma ji nga xam ne bés bu bés bu set maanaam nga koy indi boobaa nag maanaam ndigal dina bàyyi ko kër sëñ Tuubaa gi dugg ko Cheikh bu la ko waxee boobaa nag maanaam da nga ko jëfee nag kem sa kattan mm-hmm. loo waral nag jëmi jamono ju nekk ajuma yi bu ñëwee rek ñëw tàmbali liggéey bi àggalee ko maanaam kër sëñ Cheikh say jébal ko ko ci anam bu mu gën a rafete mm. sëñ bi xolam seeta ci guy nag maanaam mu nekk loo xam ne tamit mbégte lay doon ci sëñ Fallou Fall Mbaor di mbégte ci di mbégte tamit ci mbokk yi dëkkandoo xarit yeeg am na jàmm yëpp daal. tur man maa ngi tudd maam Cheikh Ibrahima Diop Baye Fall di taalibe sëñ Fallou Fall Mbaor. sëñ Fallou di kenn waaw sëñ Fallou di kenn koo xam ni xam nga sëñ Fallou maanaam ni mu la ko mën a waxee mooy ay meloom melow sëñ Fallou Mbacke turandoom la yore ndax bi mu ganee jamono en 1952 Mbacke fa la ganee jamono sëñ Ali Fall Mboor ñëw wax ko sëñ Fall sëñ Fall moo ñëw léew ko tudde ko tudde ko boppam te yaakaar naa nit ki bu fekkee maanaam tudde tudde nga ko boppam wax na ne maanaam da nga am ci moom juróom-ñaari jikko juróom-ñaari jikko yooyu yëpp nag moom mi ngi ci jëm jeeteeg sëñ Fall ko gore la sëñ Fall ko laabir la sëñ Fall ko tabe la sëñ Fall ko am ak yëg la sëñ Fall ko mën a maslaa la sëñ Fall Fall Mboor mais maanaam boo ko séenee bañam ngay jëkk seen muy jëmm joo xam ne tamit maanaam loo xam ne maanaam mi ngi ci jëmmi sëñ Fallou Mbacké may may turandoom rek mi ngi ci moom du ma ne jénn jikko de mais juróom-ñaari jikko ni sëñ Fallou yëpp ma nga muy sunu yaakaar àdduna ak alaxira jëmmi jamono yu ne amu ci lenn moom bañ nag ba ay taalibeem sax du sas ndax nee na man bëgguma sonal sami taalibe ci dara waaye nag boo gisee am loolu man leen koy wax bëgg naa ngeen jëriñu àdduna ak waaye moo tax maanaam jëmmi jamono ju nekk léeg-léeg ndogu rek lay sase nag te nee na bëgg leen dimbali tax ndogu rek lay sase te nee na bëgg leen di ma tax du sonal taalibeem ci dara amul jenn jëmm joo jenn jëmm jamono joo xam ne dana jóg ñëw ci taalibeem maanaam ngir bëgg ci lu lu ci poosam tey fi mu nekk boo ko fekkoon fee jox ko lu ay junni yu la jeex tamit nga xam ne soxna na xam moom lu koy jébalaat nga xam ne jëmm ju tawe ju gore ju yaatu ju laabir ju masla ju bëgg nit ju bëgg doomu aadama te ñu nag amuñu lu moom xamuñu lu moom yaakaar ñu lu moom nag waañ wii nag boo gisee tamit mu nekk nii mu nekk gis nga ñii ñëpp maanaam ay taalibeem lañu ci bokk na tamit ci jëwriñ yi nga xam ne léegi maanaam ñoom ñooy taxaw waañ wi jigéen ñi ñoom ñoo daan dem di taxawu liggéey bi waaye ñoom danoo dem ba yàlla def nag maanaam ñun nangul liggéey bi si jigéen ñi wala batiku ni jigéen ñi léegi yéen di leen toog fee di xooli pommeteer yeeg soble yeeg affaire yi bu ko defee ñun maanaam li war ci tufe yeeg mis yeeg yëpp ñoom ñoo koy def tey teraanga yi fukki gàtt ak ñaar la ak ñeent fukki gàtt ak ñeent la moom mooy teraanga yi nga xam ne lépp dañ ko def nag lépp mis wi la nga xam ni ndax sëriñ bi sax te démb nee na ma li ma bëgg mooy sama yéene sax ci liggéeyal sëriñ Touba sëñ Cheikh Say àggugut waaye bu àggee dinaa fi sëral loo xam ne dañuy xëy suba di defar ba jant bi soog ñii di togg ñii di defar ba jant bi soog ngir teraanga joo xam ne dama koy jëlee fii kër Cheikh bi yóbbu kër sëñ Touba te sëñ Blaat dafa ma a wax sëñ Fall Mbor ni ko Aliou Fall mu ne ko ah, mu ne ko Baye Fall amul mbañ Baye Fall amul mbañ. Sëriñ Fall Mboor ne ko luy mbañu Baay Faal mu ne ko mbañu Baay Faal mi ngi ci ndigal jógee kër Sëriñ waa gii dugg kër Cheikh Ibra ba génne war kër Cheikh Ibra dem kër Sëriñ Tuubaa te ndigalam mel na ko Sëriñ Tuubaa bëggi nee bu fekkee Baay Faal day am mbañ loolu mooy mbañam kon nga xam ne kon Baay Faal ku nu bàddil la Cheikh Ibra jamono yi nga xamee léegi maanaam euh, mi ngi togg ndogu yi daan ñëw ci ci ci ndogu yi nga xam ne boobu ay mat la woon saxaar si dugg ko ndeysaan dongo yi yërëm ko ci saxaas ni ko ah waa sëñ bi saxaar si moom da lay indil ay sojo yooyu rek te nga dem toog ci kër gi a ne ah bisimilah jàmm ah xanaa xamu leen saxaar si saxaar si dana jox ak wir saxaar ndongo yi dana jox ak wir dana joxe aaju faju dana joxe mbir mu jub loolu tax man Ibra Fall ba bëgg a barkeelu ci saxaar si moo tax ñoom it barkeelu googu si ba taxawoon di barkeelu ci saxaar ndog ya moom lañ njabootu suñ Fallu Fall Mbor gi teew yëpp maanaam di barkeelu ci si moo tax tàngoor lu mu métti métti rek yëguñu ko yëguñu tàngoor yëguñu naaj ñu ngi sant yàlla di leen sant tamit yéen ñi fi ñëw di sant sëñ Fall Fall Mbor di ko ñaanal yéen ji mu am ci liggéey sëñ Touba yàlla na ko sëriñ Touba jàppale ñu nit yéen ji ne am ci liggéey sëñ Fall Fall Mbor yàlla na ci sëriñ bi jàppale ban am ci lu gën a kawe suñu jot wasalaatu wasalaam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf sëñ Fall Fall Mbor ci ndog yéen jigéen ñi ban taxawaay ngeen ci am nun jigéen ñi ban taxawaay lañ ci am xanaa kontaan ci lool nag ànd ceeg mbégte ànd ceeg njaxlaf ndax Cheikh Mamadou Fadel mi nga xam ne mooy suñu yaakaar di suñu wasila lim maanaam li ma waxoon léegi rek nun dañoo def peru kurus barka yonent bi laal suñ xol yi la tàmpe tàmpe xolub jigéen ñi tàmpe xolub góor ñi mhm. di ko ñaanal fan wu gudd a wér mhm. di ko ñaanal li mu bëgg a liggéey ci yoonu Seex ba maam yal na ko liggéey mhm. te naand koog moom ci barke Seex Ibra maamam tey jii nag muy ñett fan koor di seen premier ndogu ji ñuy toggal sama waajo si Ahmadou Mbacké Sow bu ñu fekk leen ci waañu naka ngeen ko doon defee tey jii am nañ fukki gàtt ak juróom ànd ceeg mbégte loolu nag ma diggante ma ñax na farma ndax danoo yóbbu ndogu kër sëñ Cheikh Say mu ni yokku rek Cheikh sëñ Fallou fal mii yokk rek ak ndam waaye nun taalibe yi ban ànd ak Cheikh Mamadou Fadil nun danoo yokku ba yëg ko kontaan ci loolu nag lépp lu def ci sëñ Fallou lépp lu def ci sëñ Fallou mbaa ñu mbaa mbaa ñu mbébét ko ci sëñ Fallou yal nañ ko suñu borom yàlla yombal te yàlla yokkal nu fanam yéen ak Fall Ndiaga ba lu mu bëgg liggéey ci yoonu sëñ Touba ak Cheikh Ibra suñu borom yàlla yàggal ko yeggale ko noonu de loolu lañ ci kon daal ñu ngi ñaanal suñu Fallou Fall mu yàgg fi te wér nu yàgg ci ginnaawam te wér soxna Anta bëgg Fallou jërëjëf fekk la fii ci mala yi ngay barkeelu ci ndogu yi mm-hmm. loolu ci mën a wax euh, xanaa sant yàlla rek ah di sant yàlla li sant sëñ Touba di ñaanal seen muntaxaan mu yàgg fi di ñaanal sëriñ Seex Jëmb faal waaye nag di ñaan sëñ Fall Fall Mbawar nga xam ne mooy suñu buñ Cheikh Ibra Fall di sant ñaanal sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke saxewu mi nga xam ne mooy suñu buñ sëriñ Touba ndax moom la ñuy ti ndog yi ah, di kontaan bu baax a baax ci njaboot gi nag surtout donga yi dëgg pasté bi mate na ko euh, li ñuy def macha allah gis nga ni gëm nañu ko leen sant bu baax di ñaan suñu borom dimbali ñu jàppale ñu ba at mu jot ñu def lu romb lii. ñu fekk la ngay baaje mën a gi. waaw loolu moom. nekk yaay Fall. nekk yaay nekk yëpp ci yow. na la. <laughs> lii moom yoonu si xebre moom noonu la rek la. Ah. waaw waaw jëf jël la rek. Ah. ndax eh, kenn ku ne loo ci def yaa ko moom. te mm-hmm. mm-hmm. dañoo lii moo ñu war. ndax suñu borom moo ñu boole ak si xebre. ñoo ne ci wanag war koo liggéeyal. dong Baye Fall nan la war a mel ñun ji soxna yi nan lan war a mel. comme ni nga yàqu na xat-xat am na ñun lan moo war a doon. comme ni gis suñu koy suñu wanag rek moom mi ngi ci Baye Fall gi ba léegi. Ah, dëgg yàlla macha allah ay ay ay Baye Fall lañu daal ndaxte ndigalu sañ bi la ñuy déglu moom la ñuy xaar. te it heure bu sëñ bi ne ay ca rek ay ca waaw ñun moom ñu xaar ah ñeneen ñi nag xëy na dafa am ñoo xam ne ni dañu ne dañuy bay faal waaye sax boo leen laajee duñ xam sax ku seen sëriñ mu ne duñu bay faal mhm. waaye bay faal dëgg dëgg dëgg ci banaku sëriñam nga koy fekk mu nekk ci ndigalub sëriñam di déglu ndigal bàyyi tere ñu ci loolu nekk ñun incha allah kon ko ko dugg may ñu baaji bi waay bismillah <laughs> ba tey fii ñu ngi ci waañ wi fekk fi soxna Ndiobo mbake moom sëñ Fallou Fallou Mbawar ñu fekk ko fii nag ci ndogu yi jëf ji muy jëf at mu ne da koy jëf ren nag rawatina ñu fekk ko fii ci cin yi moom la nandal nii nag sëñ Saana dana leen woon soxna si ndax dafa jël lépp jaay ko jënd ko be doon nag baay Fall rek dong kot Euh, nekk suñu yaay kon nag Mbacke jëf ok jërë ngeen jëf mbokk yi mboolem euh, ñi fi teew ñëpp nag di ay télévision yi site internet ñëwoon nag ci tey liggéey bu tedd bi nga xam ne mooy cosaanul euh, ndog yi nga xam ne kër maam Cheikh Ibrahima Fall Babi Mouridina ñoo ko njëkk togg te kër ko tedd ki sëñ Tuubaa moo ko ko santoon ci njaarim te muy lu yàgg di taarix ci yoon wi. mag ñi dañuy nettali diggante jàpp 1918 bi ku tedd ki sante ca njaarim tam àndoon na sëñ Yaaram Mbay man ko damay séentu gan te bëggoon nga gàttandul ma ko te gungeel ma ko Cheikh Ibrahima dégg sëñ bi xam na weeru koor la ko ku tedd ki wax ndax mooy ganam Cheikh Fall naa sëñ Bamba ay ndogu la may toggaloo kon nañ ci jëm daal di wax ne ndogu yi ma sëñ Bambay toggaloo kat doom ku ma jox la toll lépp tànk ma fàggul la ci loo xam ne dootul yàqu da boo faatu mu dugal laaj na moo tax boo fekkee fi ñu koy toggee da ngay gisee ne ñi amuñu sago ci li ñuy def ndax xam nañ njëriñ li ci nekk mboolem njaboot gi kilifa yi nga xamante ne bii ñoom ñoo jiite liggéey bi ñoo ciy jiitu euh, jëmm ji ñu toogal nag euh, firnde la ci mu soxna Njóoba Mbàkke nga xam ne euh, moo nekk fii ci liggéey bi jiite waañ wi ànd ak Cheikh Mouhamadul Fallal di Serigne Fallou Fall moom Serigne Aliou Fall Mbor ci liggéey bu tedd bi nga xam ne mooy liggéey ndog yi te at mu jot ñu di ko def taxawoon nii fii ci kër gi niñ koy defee ci mboolem buntu kër maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp foo leen fekkee ci saxaar si ñu nekk ci biir waañ wi ndax lépp rek bëgg-bëggu sëriñ bi ni ko sëriñ bi bëggee mu amee ni waxoon naa fi ne buñ masaan togg yi ndaw yi ci njaarim dégg naa ci lam suñu Mourou Laye Fall ndar mu ne mag ñi ne nañ ko Cheikh Ibra daana ñëw ba fi saxaar si jug jëm mu teg fa séesam saxaar sépp ñëw ci kawam doom dañuy wax laal la ñëw naan ko bàyyi moytu saxaar si ndax baaxul ci yaram mu ne ko xanaa xamoon ne saxaaru ndog yi sëñ Bamba day dindi ak ràgg xanaa xamoon ne saxaaru ndog yi sëñ Bamba day dindi ak ñàkk te saxaaru ndog yi sëñ Bamba yi cawar ci mu fekk ci dana ko saafara kon boo ñëwee fekk kilifa yu baax yi ne ci biir saxaase si dangay xam ne kon ñii bàyyiwuñ ko kenn ndax xam nañ ne yoon wi lépp liggéey rek la rawatina liggéeyal ku tedd ki di Serigne Touba Cheikhul Khadim ñu fas yéene nag bu yeggee bu yemboo ndax tuuti defe naa sax ñu ngi toll ci wàllu tibbaate ngir waajal ndab yi yóbbul ko Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke tey moo fi Serigne son yi bu yàlla na yàlla yàggal ko fi bu baax a baax te dolli ko wér kon Mbacke xam naa rek ñu ñàkk kàddu yoo ñuy baaxee ci liggéey bu tedd bi nga xam ne tàmbali nañ ko te fas nañ ko defe ni ba weeru jeex ñu ànd ko mboolem soxna yi ak mboolem murid yi ci kër gi yëpp. waaw asalaamaaleykum ñoo ngi leen di ñuy siyaar bu baax di wax auzu billaahi mina seytaani rajiim ñaanal Seex Muntaxa yàlla na ko yàlla yàggal te mu wér di ñaanal li Sëriñ Seex Jëmbu Faal xalifa Saint-Lazare de Baye Fall waaye nag di siyaare sëñ Fall Fall Mbaor di sant nag bu baax a baax euh, di yàlla ndax euh, li ñu sant yàlla mooy bi ne suñu borom boolee ñu di doomu aadama defe ñu di jullit defe ñu di ay murit waaye nag yàlla boole ñu ci yoonu Seex Ibra te yoonu Seex Ibra kat bokk ci am na solo ndaxte bëgg cee bokk yaakaar naa taxu cee bokk kon nag buñ ci yàlla boole ñu lañu sant yàlla ah, di sant suñu waajur bu baax a baax ndax ah, ñun yàlla ñu boole ci yoonu Serigne Touba boole ci yoonu Cheikh Ibra kon nag loolu ak sant yàlla la ah, di ñaanal nag sëriñ Fallou yàlla yàggal ko fi te mu wér ndaxte jàmbaar la mm, te ku bëgg Serigne Touba la mm. te ku bëgg Cheikh Ibra la kon nag yàlla boolee ñu ànd ak moom di liggéeyal kon dañ ci sawar fas yéene ànd ceeg moom liggéey ah, sant bu baax nag it njaboot gi nu yàlla booleel ndaxte njaboot gi it macha allah bëgg nañu gëm nañu ko bëgg na li ñuy def te fonk nañu li ñuy def te lu jafe nag ndaxte crise yi bari na waaye ñun wax dëgg sunu sunu wanag yi ñun ñëpp kenn ku nekk borom passif rek ñoo fi nekk kon ñu ngi leen di sant leen ñaanal di ñaan sëriñ Seex Ahmadou Mbacke nga xam ne moom la ñu yàlla booleel muy sunu lépp yàlla booleel muy sunu buntu ñu di ko yët ndogu yi ah ca mi ku ko mat nag ku ko jaraw yët ndaxte ku fonk li ñuy def la moom it di ko di ko ñaanal di ñaanal njaboot gi yëpp di ñaan sunu borom daal jàpp ñu ba lii nga ñu fekk ñuy def mu nekk ci sunu xol sax ci sunu xol mu bañ doon ngistal ci ñun. te doon liggéey bi sëriñ Touba nangu. Euh, jërëjëf Mbacke maanaam euh, nan ngeen ko fas yéenee nag liggéey ci weer wi ndax ndax mel na ne euh, daaw dafa xaw a wuteeg ren ren xaw naa amuk ku tuuti ci ne ma gën naa yaatu ndax xëy na daaw tawat seeg fi ni mu demee woon mais ren lan mooy programme bi nga xam ne moom ngeen ko fa yéenee ànd ak mboolem wëllëre yi ak taalibe yi ba weer wi jeex. incha allah ni nga gis ni rek lañ ko fa yéenee tàmbalee ci bisimilah rahmaani rahiim yeggale ko ci fas yéene ci ànd ak njaboot gi yëpp rek ndax daaw amoon na ay jafe-jafe ndax tawa si fi amoon dañ daan def bu ñu toogee ba pare rek def ko ci oto yi yóbbu ren nag fas nañ yéene dañ daan def fekkoon ko fi moom lañuy ànd def yanu ko ànd ak bàyyi faa yi ñu sikkar ba yegg ci wetu kanamu sëñ Seex ñu jox ko incha allah. jërëjëf maanaam tamit euh, nga xam ne itam moom lañ koy taal pour gën cee soññu ñi nga xam ne ñoom ngeen ànd liggéey bi ndax dafay doon loo xam ne dañ cey teel a jublu wala dafay doon loo xam ne dañuy bàyyi rek ba mu naaj jublu ci. ñun moom dañuy xëy jublu ci ñun xëy dañ ciy jublu xay na li ñuy def ma xaw a xëy rek. Euh, liggéey moom boo bëggee mu tege ci yoon dana du du gaawe na nga ko bëggee waaye ñun buñ xëy dañ ciy jublu ca ndax fas incha allah nañ daan def bu ñu bu ñu sëlmee tàkkusaan la yóbbu moom lañ fas yéene tey pare nañu nii ñu ngi takk bu ñu pare dañu ko yóbbu incha allah hmm, lan la ñuy soññ waa waañ wi ndax boo leen fekkee ci waañ xam ne am nañu bëgg nag ndeysaan ndax lépp loo xam sëñ bi woote na ko rek dinañ ca def lañ man ngir jéem ñëw ngir dabu bëgg-bëggu sëñ bi xaw liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall ba waaw ñoom li ma wax ñoom baram Pastef la ñu ku bëgg li ñuy def lan ñoom boo leen ñëwee fekk ñu ñuy liggéey rek nga xam ne nii ay borom pësteef ñooy liggéey wante nag kenn ku nekk euh, li naan garab bu ne la fay la fa la nga fa dagge moo fay saxaat xëy na sëñ Aliou Fall Mbawar nga xam ne moom moom kër gi di di waajuru sëñ Fallu yàlla dafa dogal taxawoon na ci taxawaay Baye Fall boo xam ne nii parce que bari nañu ko ci taxawul woon mm-hmm. xëy na taxawaay boobu moo moo law ba léegi ba ci njaboot gi tey kenn ku nekk booy def da ngay defe ne sax yow yaa war def lépp waaw loolu damaa fe ne xëy na loolu moo ñëw ba ci ndax liggéey bu liggéey bu nangu day day day day sar te kon da ngay gëm ne suñu àllifaan ba war li moom liggéey sa xib yàlla nangu na ko waaw kon nag nañu góorgóor rek xam ne ni sant yàlla rek te fas yéene takk sunu laxasaay liggéey sëriñ Tuubaa sa xib te xam ne ni àdduna moom rek moo fi nekk waaw liggéey sëñ Tuubaa Seex rek moo fi nekk waaw sax àjjuma bi mu ne moom xam nga yoonu sëñ bi moom da nga yow yaay jaayante seet loo ci féete war nga féete ko mm. du loo xam ne ni dañ ne ko da nga koy def moom moo xam ne nii dafa war a def rek mu def ko daaw ak ren dañ ne sax daaw ak ren waaye yoon wi nag moo xamul jamono ju naqari mais gis nañ ba waaye léegi confinement bi téye woon kenn génn kenn dem fenn kenn demul fenn boo ñëwee di nga gis ne liggéey bi moom nam meloon dafa gën a yokk maanaam daal liggéey bi xamul jamono ju naqari maanaam sëñ Touba xamul jamono ju naqari waaw sëñ Touba ci boppam boo ko dëggalee ci di ko liggéeyal xamul jamono ju naqari man dafa mel ne sax confinement bi day seet na moo far dàqati biñ confirmé wut loolu sëñ Touba rek ko am tey lañ daan def lu ko dañ koy doublé di ko def te duñ ko yëg ndaxte kenn ku ne la nga koy def doo ko gi booy joxe doo ko yëg ndax ci xol nga koy joxe ci xol du jeex